Ahmed Aïdara bismillah Cheikh Khalifa Sall mi

ñeent yi nga xam ne ñoom ñoo am ci Ndakaaru Njaay jël Jóob day ma ne la commune bu ci ne ñun daal bëggaloon nañ la ab terrain boo xam ni gazon synthétique lay ne waaye dara lépp kon yàqu na fi mu nekk ni lay parce que nag dañoo jàkkaarloog suñu noonu ab adversaire boo xam ne day bëggul ñu am bilan kookan la Khalifa Sall ni xool leen rek ki nga xam ne kon moom lañ jàkkaarlool te bëggul na kon ñu am bilan Macky Sall ba ma gëjee daje kon ak moom rencontré ko waaw mooy ba may joxoon Mourake Ba di ma ko dig daal offre juin ba ak septembre 2012 ba bis si jonn yàlla tey nag laa la wax boolewuma ci dara amul kan guy ñëw ci biir réew mi man nekk maire capitale bi wala lii wala lee comme yeneen maire yi kon nañ ko doon defee parce que man nag nekkoon naa adjoint maire dara le quotidien ne kaay ne nga xam ne kon nañu koo bloqué day maire Ndakaaru Ndiaye jël waaw Khalifa Sall day ma ne kon état de maa la ko wax maire Ndakaaru Ndiaye jël Diop yamu ca parce que Khalifa nee na li ma wax du dañ de caisse bi waaw ma ne la la ñaw kam fi am jom wal fajri ne Khalifa Sall dañu koy tëj maar tey daal dañu koy kon bu ñu tëjee ah. nag ab décret bi numéro 2003 657 du 14 août 2003 uh-huh. maa la ko wax loolee de la ñu indi pour xamal nit ñi ne gis nga caisse d'avance bi nekkul fonds politique uh-huh. waaw waaw waaye nag gis nga ñoom seen ex boobee gouvernement bi indi jaare ko nag ci seen benn journaliste day waaw dañ caa juum dañoo juum daanu ba ne tasar la ñu def ñoom seen ex nga xam ne moom la ñu indi day daa laalewul dara ak wàllum caisse d'avance yaa juum ma ne am ca yàlla yéene kaay Sidi Lamine Niass de dama gis nga décret boobee waaw ma la daa waxul dara ci lu jëm sax ci wàllum collectivité locale waaw waaw ma la décret ba day résidence de l'état waaw lay wax enquête boobee sur quotidien nee na Khalifa Sall kay a mën ne la indi na ki réew bi rek loolu dëgg libération yi ne kay ne lettre bi nga xam ne day moo daaneel Papa Diop wala jii xii jaaxaa parce que nag le 2 août 2002 la Papa Diop bi noonu nag ministre kon budget waaw ngir xamal ko ne day gis nga wàllum caisse d'avance kii a vraiment jarul nag ay kay daal ay pièces justificatives ak yooyee jaru ko ca jamono joo jaye l'observateur nee na négociation yi day ak syndicalistes yi waaw Mouhamad moo ciy génnee nguur gi de ma ne moom la nguur gi yónni Mohamed Boun Abdallah Dionne day waaw dama ne la ci ñaari weer tax na daal ba ñeent ci ay grève amul kon fii biir réew mi donc soobi li ne day ndaje mi xam ne moo doon dox na ci diggante premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne waaw ak syndicaliste yi wàllum santé wér gu yaram day médecin waaw fa ñu nekkoon juguñu fa ba léegi ni la day moo xam ne ñaar fukki fan ak juróom gi gum moom kay day baax rek wala maar day taali yéene kaa ne Ndakaaru njaay jajoo gi ak banlieue bi waaw li fi xew doy na waar parce que nag robinet day ndox mi nga xam ko ba noppi ak wakaam waaw demal ubbi seeni robinet ndox mu bon lool waaye Parcelles Assainies gee Guédiawaye Rufisque Badouas ak yeneen gox ak yeneen gox waaw foofee moom dañoo gisul sax ndox nag boo bëggee dégg dégg mar leen di ray tey émergence Omar Faye leeral askan wi ne réew mi ci boppam fi mu nekk nii moo ñàkk ndox ba mat le pays est hydrauliquement maquillé lu ëpp ñaari semaine a ngi nii lee laa la wax yenn ci sénégalais yi day ndox doom bu góor la ci ñoom gisuñu ko te waaw waaye ndox mi ci boppam liy jot a ñëw ak néew daa bon ba maara day taali bi nii kay ab feebar moo ñuy yoos maara day taali déshydratation amar fay leeral askan wi ne yow am daal lu du leen ci fekk nag laa wax eh way samba waaw waaw te facture yi tey a seer loolu des des ca kay présidentiel ba la nar a am wal fajri nag ma wax leen ñan ñoo war a jàkkaarloo kon ak président Macky Sall mi parce que am na ci ay candidat yoo xam ne day seen dara leeru yàlla ah. moom moom li leer ba leer mooy doon doon candidat ci élection présidentielle da doon waaw waaw ngir défendre am tamit deuxième mandat waaye Idrissa Seck tamit day doon candidat parce que nag dal Karim Wade Khalifa Sall day Idrissa Seck fi mu nekk nii moo fi sa ci opposition bëgg bëre bañ bëri en tournée mi nga xam ne mi koy def day à discours mi bu dakulee a mën na koo may jàmm de la ko wax Abdoul Mbaye day day doon candidat ma ne la nationalité française candidat Alaaji Malick Gakou moom ay cadre parti ñoom moom ko sion moom dajalee nañ ko ba mat di xaar day doon candidat de moom Gakou maa ngi koo taxaw Sénégal ak ñàkk maa ngi koo day doon kon ab candidat ñi nga xam moom dañu ko juróom benni atu yàlla ak fanweer ak juróom ñett moom wóorul moom moom it wóorul parce que dal Karim Wade dongo ko dal candidature Khalifa Sall day mi ngi dépendre ci at xam ni kon dañu koy arrêté Cheikh Tidiane Gadio wóorul de moom it wóorul de man ngaa kii problème kon ca américain eh. ñi nga xam ne nag njortees nañ ne xëy ñu doon ay candidat maître Madické Niang Modou Diagne Fada Abdoulaye Baldé El Hadji Issa Sall bi ak Thierno Alassane Sall maître Omar Youm ci la quotidien yi ne kaay nee na ñun waa APR day ak président Macky Sall waaw dañuy gagné élection présidentielle yi laa la wax gagné bu rafet de belle manière waaye balaa nga naan naam na fa parce que Walf Fadjri nee na APR day ubbi nañu nekkoon seen mbalit ma ñi ngi xëeñ xonn xuloo suba ngoon guddeeg bëccëg xoolal ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo day da ngay attaqué kon Cheikh Oumar Anne directeur u kudd ah, waaw ma ne la maire Bambilor ne ma Ndiagne waaw ma nga ne tuumaal Omar Gueye ne moo jaxataxatee kon maire mbaax doy na waa dem naa ca lambu jë du jànje ko waaw ci la ko tijjee yéene kay nee na dagg bi nga xam ne nag waa CNG dañ koy dagg mbëri nii seen xaalis waaw laaj na leeral de xaalis ba fu muy dugg laaj na leeral assemblée générale d'information <laughs> alaaji xam naa ne li CNG di dagg mbëri yii buñ dajale woon ba di ko ci taabal ci dana mën a tabaxaat beneen arène dudd ba xasaar wala lambi tukulóor boo paree ma ne la alaaji